recensement fukki at yu nekk lay am mbokk yi atum 2013 nee nañ li fi yeewoo ci ay doom aadama mi ngi tolloon ci juróom-ñaar téeméeri junni ak juróom fukk ak ñett yu teg ñetti téeméer ak fukk ak ñett 2022 ñu ne mu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yu teg ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn mbokk yi. xam ngeen ni lim bii ñuy bindal Touba méngoowul ak li fi yeewoo ci ay doomu te dara warulu ko lu dul nit ñi ñoo ragal ku leen lim kon dafa jot sëkk kenn ku ci nekk def ko yitte ndax yittey sëriñ bi la de asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi rawatina ñi dëkk Touba ñëpp ñu yëkkat suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha muy kàddu yoo xam ne kàddu yu ko itteel la ndax ñi fi dëkk ñëpp ak njabootam lañ kon bu gisee loo xam ne xam na ne lu leen di defaral la faaw responsabilité mooy lam ca war def mu def ko ca nguurug Sénégal am ay mébét yu mu bëgg def ci xayma nit ñi loolu day day day day day liggéey bu rëy boo xam ne ñoom ñu koy def ci réew mi waaye Touba nag dañ ci am seen jafe-jafe bopp ndax xam ngeen ne Touba ñaare néew na boo duggee ci kër yi di laaj bu fa fukki nit dëkkee wala ñaar fukki nit ñaari nit dëkkee wala ñett loolu nag euh, réalité boo xam ne Touba dañoo ragal recensement ndax euh, li ñuy wax wolof day bañ ko lim jàpp ne ku tudd sa njaboot sax ne nangam lañ mën na leen a wàññi loolu ñoo xam ne doonu du am solo ndax yàlla suñ borom. ab atteem weesu na loolu waxtu ne Touba nga dégg ñi de wax ne un million lañ ñi naan un million cinq cent lañ ñi naan deux millions lañ loolu la indi njuumte li dëgg-dëgg mooy kër yi ñu dugg di laaj nit ñee leen di wax la fa dëkk te xamuñ ne ci population bi nu mu toll ci la état di mën a sukkandiku ngir li ko war ci nit ñi du ko def am na dëkk yoo xam ne Touba ñaarte na ko ba noppi buñ dee xool ci xayma ñu jàpp ne dëkk yooyu ëpp Touba waa Touba seen aq li ci manqué dee bëri te loolu feeñ na bu baax a baax ndax booy xool dëkku Touba ni mu rëy ak ni mu toll boo dee xool ci ni ñuy séddalee ci biir réew mi Touba aqam day wàññi day lool ci boo ko nattee ak fa mu loolu nag li ko indi mooy nguur gi ñoom loolu seen wërte fa waaye waa dëkk bi dañ ci am responsabilité kon ñaar responsabilité lañ ndax. Eh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax naan boo xamul na nu dab yi toll doo mën a séddale kon faaw kii séddale xam ne fii ñaata nit dafi dëkk xam ne fii lée ko fi war kon na loolu Cheikh mu Mountakha nee na mi ngi ci soñ ñëpp euh, ku ñu agsi ci yow ku ne nga fexe ba xamee ko noonu xam la leen taxa a xam ne li ñuy def yow rek li ñu bëgg a dimbale dëkk bi la ñu bëgg dem dimbale kon na ko ñëpp xamee noonu bi nga xam ne sëriñ bi joxe na ci ndigal it waxoon na ma ma joxaat ndigal waa commune Touba ak waa daayira Touba ci kanam ñu ànd ko ñoom ba euh, mu yaatu ci dëkk bi ba fu ñu dugg fu ne ñooñu xam la leen yëkkati ak la leen fa tax a dem kon ñu ngi sant ñëpp di nuyu directeur bi nga xam ne moom lañ ko teg ci loxoom ak ñi mu ko ànd ak ñëpp yàlla suñu borom dimbali leen ba mission bi àgg te ñu bañ ci am benn gàllankoor asalaamaaleykum wa rahmatullah. dégg ngeen kàddu yi Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadr ci njëriñ li mu doon ci dëkk bi ci njëriñ li nga xam ne recensement am na ko ci dëkk bi ak ci waa dëkk bi sëriñ bi ci jëmm boppam moo bëgg a xam njabootam gi yeewoo ci dëkk bu sell bii di Touba nu ñu toll commune bu Touba ak Touba ca kanam jot nañu ndigal ñu ànd ak ANSD ngir li sëriñ bi bëgg mu amee ko ni mu ko bëggee tànnal nañ leen ay ndaw yu góor ak yu jigéen di seeni doom ak seeni jarbaat di waa dëkk bi xam dëkk bi xam dayob dëkk bi xam nu ñuy waxee ak dëkk bi ubbi leen kër yi dalal leen déglu leen tontu leen seeni laaj kon kenn ku ci nekk na waaj te fexe ñu lim ko ndax lim nañ ma ci dëkk bu sell bii mooy bokk naa ci njabootug sëriñ bi yitte kese la bokk wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat